quand une population se pose des questions mhm. euh, il faut des réponses mhm. te ces réponses là duñ ko xaare ci ñi nga xam ne ñoom ñoo incarne l'autorité mhm. ñi nga xam ne ñoom la ñu jox ne euh, gérer leen Covid-19 ñi nga xam ne ñoom la ñu jox ne gérer leen ay vaccin mais tey jii en tout cas les questions que je me pose man mi toog fii xam ne mën naa wax ne j'ai parfois accès à l'information mais kii ne ci mbedd mi kii di ñu seetaan këram il se pose les mêmes questions cest dire que li li maam Biram doon wax quelle garantie sur le lu tax may seetaan benn jigéen muy wax ne bi mu vacciné woo euh, ay mbaaxam dafa précipité wu lu tax may seetaan benn nit mu ne bi mu vacciné woo dafa tëdd ay fan mënul jóg kenn ne moom bi mu vacciné woo loxoom bi nangootul jóg euh, et cetera et cetera pourquoi tey jii le gouvernement ne s'organise pas pour expliquer na serait-ce que nous expliquer lan moo tax effet yooyu di am par exemple mais xam nga loolu mooy yoon parce que gis nga nit ki lu mu xamul da koy ragal je crois que tey mënoo ni euh, nit ñi dem leen vacciner wu ji te waxoo leen dara ci vaccin c'est-à-dire nit ñi aussi boo leen di encourager da leen di wax dëgg. dëgg la da leen di wax aussi information yi nga xamante ni ñoom dañ koy soxla bu ñu ko amee naan ba pare ñoom ñu décider ni dañuy vacciner wala ñu vacciner. Mm-hmm. mais doo toog fi nga toog. et puis doo communiquer nga bëgg nit ñi di def euh, communication bu Moustapha Diop di wax nga ni ko non non non il est na waxee neneen parce que dafa war encourager nit ñi pour ñuy vacciner wu. Euh, c'est ça aussi warul jël engagement di naan nit ki demal vacciner wu ji kooku tey ji bu si amee effet secondaire wala dara Moustapha Diop moom mooy doon. Mhm. moom mooy doon responsable donc je crois que tey. war nañu jël ñi nga xamante ni c'est des parce que aussi mën nga mun nañ jël ñi nga xamante ne c'est ñu jox leen les bonnes informations ñoo xamante ne neex nañoo gis ñu teg leen ci télé ñu wax a nit ñi. Mm-hmm. nit ñi demandé wuñu lu dul des des explications et des et des moo tax tey jii man par exemple dal na ma vacciné wu naa sama yaram bi di métti ma tëdd. après il a fallu que ñun ma jëlal ay doliprane jël ay garab yooyu mën naan ko jug. mais peut-être man am na ñoo xamante ne ñu ma xam ñu ma sauvé. Mm-hmm. mais am na ñoo xamante ne peut-être du ñu nekk ci même condition yooyu. te du yoon sax man nit di ma naan demal def ji li alors ko waroon naa ko xam laata sax may dem di euh, vacciner wu ji. bien sûr naa xam par exemple dama war a lekk ba suur waroon naa xam par exemple dama war a naan ba màndi. dama waroon euh, tëdd nelaw ba guddi. mais am na ñoo xamante ni Moustapha ñi ngi xëy suba ñu lekkuñu naanuñu nelawuñu guddi gi dem taxaw di vacciner wu. est-ce que amul danger si ñoom cest à de question yoo xamante ni tey ministre Diouf Sarr ak ñi muy àndal seen service communication boobu waroon nañu mën a génn toog wax ak sénégalais parce que on ne demande pas grand chose juste expliquer les sénégalais et puis donner des réponses mais malheureusement ñoom ci seeni i bopp amuñu ay réponses ah oui mhm. amul kenn kuy lay taxaw di la naan vaccin bi boo ko jëlee ci période bii la lay aar du Sénégal du États-Unis du France du fenn la preuve tey jii Israël ñu ngi seen troisième troisième troisième dose de euh, de vaccin mm-hmm. donc li nga xamante ni yow danga koy jël xamoo àpp bi xamoo diir bi et lu ci gën a doy waar les gens ne prennent pas au maladie bii ñuy wax mi ngi reye mm-hmm. Pape bi bii ñëw di vacciné wu mais ñoom xamuñu ni Pape Makhtar jëloon na vaccin wala jëlu vaccin benn simple carnet registre loo xamante ne xaw ma ban année 1960 registre nañuy bind nit ñi. Hmm, jox la wenn kayit lu ñu waroon informatiser nga xamante ni boo ñëwee dugal sa tur daañu la ni Pamata jëloo woon lii lee nga waroon jël xam sénégalais yi am na ñoo xamante ni dañuy ragal bu ñuy déggee vaccin rek dañuy dem di jëli ji. Hmm. peut-être loolu mën na doon danger ci moom. lan moo tere ñu informatiser mbir mi ba boo dugalee tur Pamata ñun la kiy jël na vaccin bi mais registre nañ koy bind ci bigg ak laata muy jóge ci réseau di dem ci informatique bi rek xaw ma ñaata weer lay def donc je crois que ñoom ñii ñuy wax na sénégalais yi jël feebar bi au ñoom ñoo jëlul feebar bi au sérieux parce que amul benn mbir yu gën a yomb nañ leen sant mooy communiquer donner les bonnes informations aussi donner des des des réponses alors Mouhamadou Goumbala a deux choses ci li ci li Pape Mokhtar wax ak Mame Birame mooy d'abord vaccin yi nga xam ne moom la ñu moom la ñu war a jël euh, tey jii ñun ñëpp on se pose ces mêmes questions là su fekkee man Moustapha dama jël vaccin sàngam ñu ne ma app sàngam dama war a ñëw jël deuxième dose app ba jot ma ñëw ñu ne vaccin yooyu amul qu'est-ce qu'il faut faire muy benn question beneen bi mooy euh, Mouhamadou la ñu ngi jëm ci des événements religieux comme le Magal de Touba moo gën a jege après juste après yàlla a le Gàmmu euh, tey jii ñuy ñu bari spécialiste ba dañ naan il faut vacciner le maximum de population pour créer benn immunité xaw ma nu ñu ko tuddee avant ñuy àgg ci yooyu. ñenn ñi ne oui ces genres de rassemblement il faut purement et simplement les interdire. c'est expérience bopp. lan lañ war a def ci ñaar yooyu. bala maa tontu dama lay jox benn exemple. allez-y. un village. Mmh. maternité bi xale yi juddoo ngi nii. Mhm. sous préfecture baa ngi nii. Mhm. femme bi bu jógee maternité ak doomam. day jéggi goudron bi dem déclarer xale bi. dañuy lànk. dañuy lànk lànk ñuy def. lu tax. Ah, xamut yóbbu seen doom. xam nga kan la indiwaat doom ji sous préfecture bi. Mhm. bu ñu demee ba muy dem CM1 wala cm war a def entrée en sixième ñu ne am na ana extrait. muy doog muy doog ay kayit. Mhm. loolu lu ci gouvernement moom. finalement sage-femme bi ci boppam. Mhm. moo leen di obligé di leen conseiller ku ci sa doom juddu ba nga ëmb ko mu ne la jaaral fee wuti extrait de naissance est-ce que loolu euh, liggéeyu sage-femme bi la c'est pas son travail te loolu ku ne xam na ko te war nga koo def. ñu lànk bañ koo def loolu loo ci man problème yu bari noonu la demee dama lay wax leen ci la système de santé au Sénégal mm-hmm. man booba maa ngi nekk lycée ah. école de santé militaire bii nga gis xam nga lu tax Senghor def ko fi mm-hmm. école de santé militaire mm-hmm. mooy maanaam dangay am bac def un petit examen nekk admis école de santé militaire maanaam on prend les séries C à l'époque ñun série ak D ak A amoon. Mhm. série ak série D ñoo ko mënoon parce que série A mënut a def médecine. littéraire gars yi ñu jël leen def leen médecine ñu nekk au militaire avec des avantages mais ñooñu ñoo daa nekk ay docteur bu ñu nekkee docteur nag il signe un engagement décennal avec l'État. avec l'État boo génnee ñu man laa affecté Gossas. wala Koupentou wala feneen parce que à l'époque un docteur boo ko mas a affecté en dor de la région de Dakar day lank day lànk démissionné. kon kay li Senghor defoon kay baax na. waaw li Senghor defoon baax na. Mhm. jusqu'à présent donc le Sénégal a toujours eu après ñu boole ci ay infirmières wubbi école de santé militaire dugal ci ay jigéen ndax jigéen ñi mën a nekk ko ak yooyu donc il y une certaine diversification li may wax ñi may dégg yépp ñu ngi ko ba l'armée sax fii mu ne santé militaire am na actuellement ay généraux dont le directeur de l'hôpital xam nga ko yéen a bokk bien c'est un général et c'est un euh, kii dermatologue mm-hmm. loolu Senghor a ko fi def Abdou Diouf bi mu dikkee bàyyi ko fi Ablaye Wade bàyyi ko fi Macky Sall bàyyi ko fi. mu continuer noonu mais nag léegi boo seetee nombre de Sénégal amu ko le taux qui est recommandé par l'OMS Sénégal amu ko pourquoi Sénégal amu ko parce que jegewu ko jegewu ko ndax un médecin pour huit mille personnes mu recruter recrutement bi ça de de l'argent te un médecin qui delloo ci la nga waxoon bu njëkk que ni on n'a pas les moyens. mais un un spécialiste. Oh spécialisation en médecine xam nga ñaata la. c'est bac plus onze. man duma def bac plus onze ba noppi dikk nekk ci état ñu may fay ay euh, soixante di six cent mille ak sept cent mille te ma mën a def cabinet bis bu set ma am six cent wala sept cent mille loolu loolu moo fi ne mënoo ci dara gars yi def seen i clinique ñi def li loolu mooy problème mu. Euh, médecine au Sénégal boo seetee actuellement il faut ñu seetaat ko boo seetee actuellement je disais récemment à un responsable proche de Macky Sall mm-hmm. déglu la très prochain ma ne ko président de waroon naa xalaat ci xalaat bi ban xalaat laa ko waxoon mm-hmm. quand tu vas à l'étranger xam nga fii am na les grandes écoles mm-hmm. kii xam na chaque année ñi am mention très bien ak bien ils vont en Europe ils font les grandes écoles am les meilleurs diplômes au monde mhm. mais Angleterre la ñuy jaar. dem dem états du duñ ñibbisi. parce que sa yaay moo ne la boo ñibbisee doo am liggéey te da ngaa jàng ba tas. Mhm. bu ko defee nga dem États-Unis man am naa ci benn ñes elle est professeure à Princeton. Princeton laa la wax de. et en même temps cadre à Google mais ñooñu yëpp bu ñu leen recensé woon indi leen Sénégal état bi. def des centre de recherche mais ñooñu centre de recherche yooyu mën nañ ci génne dara loolu mën naa booster l'investissement dans le domaine du comment ça euh, am na un terme consacré dans le domaine de l'intelligence artificielle parce que foofu Sénégal am na fi ay xam-xam am xaalis dong moo ci des te ñële dañ leen di utiliser mais état bi mënu koo def yow nga am problème perfusion di wax intelligence artificielle ah? mën ko Sénégal am problème perfusion ñuy wax wax intelligence artificielle. <laughs> mais yéen loolu ngeen bëgg intelligence artificielle il faut avancer. Mm. Kagame am na ko. Mm. il faut qu'on avance. si mm. mënoo ne aw ma lii rek. mais léegi léegi qu'est-ce qu'il faut faire ak ak vaccin yi. nag léegi. oui xam nga man am naa ci benn cas. waaw AstraZeneca la def AstraZeneca. Astra moom la def. waaw. bërki démb la waroon def deuxième vaccin ba mu demee ñu ne ko centre bii nga daa vacciné wu. amatu fi te dañoo fermer centre ba. voilà waaw qu'est-ce te dem na ba àgg te yor numéro téléphone am wëccoon na ko fa qu'est-ce qu'elle a une dame mu ne fan laay dem ñu ne ko ab centre am na fii wetu école euh, des chrétiens bi Sacré-Cœur mhm. mu dem ca centre Sacré-Cœur ba ñu ne ko démb jeex na kooku bu fi toogee xam nga fii mu ne est-ce que durée bi mu waroon a am jeex na est-ce que le vaccin antérieur ça continue à la va faire est kañ lay am bee mhm. bu ko amut est-ce que ban vaccin la war a tey jël ba tey looloo ngi fi kooku nag nangu naa merci beaucoup de bi ma ko bindee bindi sama Facebook benn waaye ne ma lii ngay wax yow ci gaa yi nga bokk war nga ko wax ma ne lii bu ma ko bindee gaa yi danañ ko gis même président mën na koo gis gannaaw jotuma ci président li ma wóor man ñi may liir bari na te ñooñu xam naa ni kilifa yi danañ ko gis mhm. buñ ko gisee danañ xam ne saa c'est un vrai problème et li dal ci vaccin bi dana dal ci ci des dal ci ci des dal donc il faut faire une certaine planification des pour ça problème na na wax aussi que man gosse bu indiscipliné bi la woo wax ma loolu ma ni ko non bàyyi ba vendredi nañu ko wax naa ko man gosse bu indiscipliné eh, eh, wax naa ko moom mi pour ma ni ko li ngay wax ni am na solo ñëwal ba vendredi nga ñëw toog wax ko ah, non non mais bi ma ko waxee dafa ma interpellé parce que je me suis dit que mais attends combien de sénégalais ñooy vivre loolu. xamuñu ni ñuy def xam nga am nga moyen wu bind. am nga moyen wu ñëw toog ci télévision wax mais combien de sénégalais ñooy vivre loolu. non pas d'accord alors da da da bëgg a wax leen aussi may problème mu ndongo daara yi doomi daara yi laa bëgg ñu wax mais doomi daara yi dañoo mën a jàng ñun damaa jàng français doomi daara yi jàng alxuraan jàng arabe c'est des intellectuels comme nous. Mhm. ku ci def dara war ngaa réussir. loolu laa bëgg nga xam. waaw doomi daara yi jàng ay c'est am na ci ñu def doctorat barki démb laa doon dama demoon Touba mercredi sama benn xar yàlla na ko yàlla yërëm ma dem di ko jaale ay doomam nekk fa doomam yi am nañ euh, euh, euh, maîtrise ba noppi ma ne leen leen laa leen xamal bu ngeen bëggee bokk ci dara ëllëg il faut ngeen am au moins un doctorat. jërëjëf jërëjëf. mais xam nga li muy wax. très bien alors Dame ci yow laa ci yow laa nga jàng alors Dame Mbodj euh, ça ça tombe bien parce que mi ngi wax ne mi ngi woon Touba mercredi pour un événement bu ñu tuddee woon journée. waaw posé nga ma foofu voilà alors après nga ñëwaat. ci waaw alors mais Dame euh, li tax euh, may évoquer loolu mooy dañu jëm ci des événements religieux. yoo xam ne ñu bari jàpp nañ ne c'est des événements qui rassemblent quand même des centaines de milliers de personnes kenn xamul lu mel. daaw ci période bi les mêmes questions lañ doon posé commencé woon sax dënn yi di jug ak yu demee noonu ren également àgguñ foofu xamaguñ qu'est-ce qui va se passer on revient au même débat qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que il appartient à l'État de dire que ni kenn du fi def rassemblement wala qu'est-ce moi je sais pas qu'est-ce qu'il pour que ñi war a dem ci événement yooyu ñu dem ko ci jàmm ak salaam état bi jël ay responsabilités dem ci fànn ba nga ko war a jëlee qu'est-ce qu'il faut faire. jërëjëf Moustapha euh, loolu nga wax am na parce que daaw ci heure bi coow lii moo amoon. mais bi coow li amee. Touba dañoo organiser euh, màggalu Serigne Touba Mbacke Khadimu Rasoul te man gëm naa ni nit ñi ñooy nekk di def spéculation mais Touba li muy def lu leer la journée xasaayit bi rek wane na ko <coughs> donc mooy waajal màggal gi euh, te Touba dañuy def incha allah màggalu Khadimu Rasoul kooku moom ku koy sikki sàkk da nga xamul Touba donc daaw bi ñu defee màggal gi ñëpp gis nañ teg seen bët kaay yokkul Touba parce que nag dañuy defar seeni i bulletin chaque jour bu dee li ñuy defar lu baax la. bu dee amul benn tappale bu ci am bi màggal gi jàllee du nit ñi dañu woon nañu xaar ministère de la waaw waaw ministère de la santé bu dee bu dee bulletin bi ñuy joxe à 10 heures amul benn tappale. Mhm. dañ daan wone chaque jour cas yi Touba am bi ñu màggalee ba pare nit ñi ne nañu xaar fukki fan ak ñeent pour xam ndax dana am explosion de a à Touba. Mhm. bi ñu paree kenn gisul explosion de cas. kon nag ñoom comme loolu lañ defoon daaw incha allah ren danay màggal. xam nga non non attends non bul ma dagg s'il vous plaît s'il vous plaît <laughs> donc. li ma gëm mooy am na ñu may dégg nag ñu naan non dañoo war a interdire rassemblement bi gis nga président Macky Sall bu ñu ko dugal ci yooyu c'est des questions très sensibles président Macky Sall mënut a toog fii def wëndeelu ci réew mi lambar lambari ci dëkk yi def lu ko neex def ay rassemblement ci biir mbas mi ci biir bi bi deux li ñuy tuddee seen delta bi bi muy commencé président Macky Sall a ci àll bi di politique waaw léegi yow da ngay def lu la neex moo tax mbas li ci nekk ci tappale dafa bëri moo tax loolu tax nit ñi wóoluwuñ leen man mi ci laa bokk man nëbbatuwuma làqatuwuma gëm naa ne feebar bi am na loolu moom kenn wërante wu ko sañ wedd yow nga ko fi doon fi semaine <laughs> euh, man man man li ma amoon gëm naa ne covid la dafa covid gëm naa <laughs> mais man feebar bi weddi wu ma ne am na mais daam nga libre tu libre xam nga mais vacciné wu nga noo vacciné wul yow non yow la yow ñuy vacciné wu di feebaraat ah. non la distanciation <laughs> allez-y donc respecté nañ distanciation man li ma gëm mooy feebar bi am na euh, ñun man bu ma feebaree damay faju comme ne ma war a fajoo mhm. mais man ñàkkuwuma am naa ci droit xam nga ñàkk problème nga nit santé moo ko moom xam nga amuñu droit di wisaare sunu sunu sunu sunu sunu wér-gu-yaram parce que wér-gu-yaram sénégalais yi duñ ko caaxaane adduna bi sax laay wax bu ngeen gisee mobilisation bi am en France parce que yaa ngi wax fake news mhm. mais en France ay médecins tey man gis naa ci marche bi koo xam ne bi muy wax da ngay xam ne kii même bu ma dul spécialiste ci santé nga xam ne kii buy dawal bay expliquer nanoparticules yi mu soupçonné ne ñoo nekk ci vaccin yi da nga xam ne kii liggéeyam la mais am na ci droit de fii à l'université de mais a un professeur je crois il s'appelle Lo mais taxaw na fi def émission wax ni moom ni ñu defaree ñàkk yi doyu ko parce que ñaar rek ñoo ci def ci ñàkk yi loo xam ne doy na ko te moom c'est un spécialiste à la faculté de médecine du waxi dàmbuj waxi spécialiste la mu ni à part Sinopharm ak Sputnik 5 nga xam mooy ñàkku chinois yi ak russe bi mu ne nga xam ne ñoom nañ daan defare ñàkk lañ defare seen bos maanaam néewal doomu jàngoro bi ba noppi dugal ko ci sa biir yaram pour sa yaram développer ay soldats yu la aar muy ay Euh, ay ay anticorps ay ay anticorps mu ne loolu moom mu sax am ci ñàkk léegi nag tey ñu xëy ñu am ñu am AstraZeneca am Johnson and Johnson am Moderna am Pfizer am am am am ku ci ne yore sa ñàkk te kenn wóolu sama morom ñoom seen biir nag. ku ne ku ci nekk ci nekk mu tawa mais wóolu bi xam nga yéen pour nit ñi wóolu maanaam euh, il faut c'est tout un ensemble léegi boo ma gisee man européens yi ñoom du ñu jël bu siin bi duñ ko ñàkkoo. du fa dem. Eh, duñ laal russe bi ah ñàkk russe yi duñ ko duñ ko laal. ah américains yi tamit ni ñoom seen i ñàkk yi defar lañu woon. wala ñun Afrique ñu jël yëpp jox ñu ko ñun ñuy jël. waaw parce que amuñu benn waaw mais maanaam non attends non cest <laughs> man damaa toog ba jàkk dama naan mais sénégalais yi est ñi ngi xalaat bala maa dee naan dambu li ngay wax day yàq mais man sama sama santé du ko wisaare man ñàkkuwuma sama jabar ñàkkuwul samay doom ñàkkuwul dama ko yokk fépp parce que doyuma am naa ci droit c'est pourquoi nous nous sommes contre le pass sanitaire pass sanitaire mënu fi am parce que ku ci nekk yaa moom sa bopp. non mais mënul am. maanaam ku doy ñàkkul surtout que xam nga am na ñu may dégg ay waaba jiiba yu naan. non bu njëkk feebar yi fi moo am yëpp ñàkk ko fi jële mais boobu la communauté scientifique dañ doon déggoo ci benn ñàkk. Mhm. ñëpp ñàkkoo ko ci àdduna bi gulee. ñoom feebar bu dugg ci àdduna bi ku ne yore sam ñàkk ni woo ñàkk ko kee man wóoluwuma ko waa léegi ñun africains yi ñun ñu nekk ñu ñàkk fayda réew mi da dem sax et puis baal ma jox la benn affaire dañ doon wax ne boo ñàkkoo première dose bi mhm. digganteem ak beneen dose bi dañ koo wutaloon délai tout à fait yaa may dégg ne trois mois la mhm. léegi dégg nga tappale yi OMS yi commencé wax mhm. xam na ne léegi li yëf yi dose yi doyul dans beaucoup de localités léegi ñu ne non non même bu rombee trois mois yi waxoon c'est pas grave te ñoom seen bopp ñoo ni feebar bi xamuñu ko ñoo ngi defar suñuy ñàkk te ci bi ñuy defar suñu biir ñàkk soppeeku na soppeekuwaat soppeekuwaat te sax les oiseaux de mauvais augure mooy may ma ca laa jëm euh, am na ñuy wax loolu xoolal les oiseaux de mauvais augure ñu ngi commencé wax sax ne yeneen variant ñi ngi waaj a ñëw maanaam yeneen soppeeku mi ngi waajal te ñoo ñu koy wax da cee am ñoo xam ne dañoo jege OMS man wóoluwuma leen te OMS moo ni rëcc ci biir réew mi ci biir réew mi fii ci biir réew mi fii Sénégal. waaw daam dama bëgg a laaj ñoo xam ne représente l'OMS. a laa a may ko mu laaj la may ko mu laaj la. yow am nga droit a ñëpp daam. waaw mais non loolu débat bi. may ko mu laaj ku nekk yaa moom sa bopp. s'il mbirum wér gi yaram la. ma ba ma wax la. yow fii mu ne tu vas tu mais man dagguma ko woon man dagguma ko woon. oh non dama la bëgg a laaj rek. mais dama la bëgg a laaj. ci micro bi ci micro bi. voyage du Sénégal. nooy def. samay maam dund nañ ba am euh, li ñu war a dund. waxuma may ma rek waaw mais man da nga maa laaj question. waaw da nga maa sama maam. sama maam sama maam dund na ca kiir joom ak loo yéen ba am at yi mu war a am génn àdduna samay waajur noonu. mësuñoo génn Sénégal xam nga man complexe boobu nekkuma ci yàgg na maa tukki nag dem naa États-Unis dem Angleterre dem Danemark dem naa fu ne mais dama ni sama wér-gi-yaram du ma ko wisaare. mbir mi daa am lu ci tey sama xel ñàkkuwuma am naa ci droit léegi nag ku bëgg a ñàkku ñàkku dama ne la man sama yoon nekkul ci dem aéroport bu dee dañoo def seen passe sanitaire aéroport man man déwuma aéroport dama tuma fa tukkee tuma parce que wóoluwuma leen maintenant Moustapha Moustapha c'est important ma daanele foofu mais man non c'est important s'il vous plaît trop trop daanelal allez-y allez-y léegi daanelal xam nga man damaa gëm ni buñ ne ñoom ba tey du samay wax parce que ñiy ruube man nag quand même intellectuel la ab intellectuel mënoo ni gumba la spécialiste la ci tel domaine nee na nangam lool xanaa mën naa ko wax nag xanaa sama niveau intellectuel mën na ma ko may man su may cité damay cité ay Luc Montagnier damay cité le professeur Cheikh Lô damay cité Fourtian ay ponk lay cité yoo xam nee nañ c'est des thérapies géniques c'est pas des vaccins ñi nga xam ne dañ jaar par la méthode ARN messager du samay wax ci ñuy ruube donc ñooñu bu ñu taxawee wax ko di ay kàngam ci santé Moustapha mhm. mais ñun ñi nga xam jànguñu dara mm. xamuñu dara ci loolu lépp mm. te suñu yaram lañ koy dugal te li ci gën a graaw Moustapha fa laay daaneel ñoom ñi defar ñàkk yëpp bi ñu leen laajee yéen yan jeexital lay am dans deux ans trois ans quatre ans ci yaramu nit ñi xam lu ñu wax ñu ne ñun duñ jël benn engagement na état yi jël seen i engagement ñun suñu yoon nekku ci ñun ñu ko defar defar nañ ko waaw mais ñun nag waa léegi yii yëpp ma fi wax ak yi nga moom Moustapha Mayone ma wax ci parce que man vaccin yi <laughs> daf ma intéressé pourquoi parce que ñun dañoo xam ñu nekk ci ginnaaw parce que les Illuminati li nga wax sànq dafa bokk ci seen i objectif ils te ñoom ñooy financer les laboratoires ku ci mel ni Bill Gates moom c'est un actionnaire de Pfizer ils ont dit dans plusieurs vidéos que la population mondiale mu ngi toll ci juróom-ñetti milliards nit ñi dañoo bare war war a wàññeeku parce que d'ici deux mille cent day dem quinze milliards xeetu meññee yi am ci àdduna bi mënatula leen dundal te les peuples mais tekk comme ñun ñii nga xam ci lañ bokk dañoo jàpp ni amuñ njariñ ci àdduna bi dañoo war a dee man nag li ma gëm fa laay daane la nit du la yéene dee nit du la yéene dee may ma fa laay daane la nit du la yéene dee ba noppi di la wutal lu lay dundal très bien alors euh, malgré tout euh, ah. ba euh, coowal vaccin ak mbas meeg nañu ñaan quand même que mbas mi ah. balay balay yàgg bala ñuy àgg ci événement yi jëm mu jóge ci réew mi